waaw li ngi sant yàlla bi nu yàlla mayee nu dafa tuuru yenn dëkk yi mu dugg ci tournée bu nuy dox ci biir Sénégal dafa gum lu mat ñeenti région war a wéyale ci wéyale boobu nuy def benn bilan d'étape ànd ko ak yéen li wér mooy li nu fekk ci terrain bi moom mooy yaakaar gu tas ak jaaxle gu rëy jaaxle googu àgg na ba ci population yi mënatuñu gëm waxu ñu ñu tuddee ay politiciens ndax yëg na ni ci seen wax la ci ëpp ci seen bopp na nu nekk waaye nekk nu ci mbirum askan mi li wér moom mooy saafara yi fileeg jógunu si mu jëm ci askan bi dañuy yëg ni seen ay coono dafay continuer di wéy ba tey dara walalu ko lu dul ni lii wolof naan xoddeeku balaa ngay lakkale loolu moo ñuy faral di të fi léeg jiituwuñu mbir yi ci bépp jamono lépp lu ñëw daf nuy bett dal suñu kaw nu jéem a xool lanu koy réglé te àddina li koy jëmale kanam moom mooy événement yi nga koy jiitu ba boo ko jiitoo bu mu ñëwee nga mën ko téye ci sa ay loxo sant nanu yàlla ci biir tournée bi fi nga xamante ni moom mooy Boubacar Medina Baye te nu diggoon leen que seen marché bi daan ko taxawal ci kàttanu yàlla taxawal nanu marché bi ba nu ko mën ko tàmbali Boubacar Medina Baye bi nekk fii ci Fass daje nañu ak njaboot yi nga xamante ni seen doom yi dañu dee ci biir géej gi. njaboot yi nga xamante ni seen jëkkër yi seen borom loxo yi ñoo ngi bitim réew étudiants yi nga xamante ni ñoo ngi jaaxle amuñu bourse amuñu fu nu jëm ndaw yi nga xamante ni ñoo ngi téye seen ay projet ak seen jaaxle pour amuñu ku leen ko financé amuñu ku leen dimbali ak ñi nga xamante ni xamuñu fu nu jëm mënuma lim lépp ndaxte spect ndaxte li ma gis daf ma ëpp libre. Euh, sunu part de responsabilité en tant qu'acteur politique dañ ci wara taxaw te dañ ko wara jël ci bir lolu kenn la ci président Macky Sall bokku ci lu mouvance présidentielle ma wax yow président de la République bi nga pré sa campagne électorale 2012 ci sa làmmiñ yaa ni gannaaw ba ma waree Sénégal ba noppi tey jii xam naa xar kanamu jaaxle ak ñàqu Sénégal ma lay yëgal man mii docteur Moustapha xar kanam googu soppeekuwul ba léegi peuple bi ci loolu la nekk saafara yi sorewul nanu fexe ba lépp lu nu diglanteeg askan bi nu jëfe ko

set setal googu amut politique bi ñuy def ci Sénégal dafay des rek di nekk politique gu naxante ndaxte bu nu amee ay retrouvailles politique daje daje googu warul nekk rek daje nanu ay mbooloo nanu dafa war a nekk daje nanu boroom xam-xam yi dolleeku nanu boroom jikko yu baax yi dolleeku nanu boroom gis-gis yu sore yi dolleeku nanu ñooñu ñëpp bu nu dolleekoo nekk benn doole doole googu mën a jëriñ senegal mais bu fekkee ni dañu dajale ba pare loolu yépp am ci daja googu daja gu naax saay la manaan naan fecc yi ak way yi baax na wante fecc ak way ci sunu cosaan ñoo ngi koy xaar ci bu nu demee ba liggéey ba liggéey bu sotti ba rafet ba baax ba nu am ndam bu boobaa sañ nañu fecc sañ nañ di way wante man docteur Fall mënuma xam lan moo waral politiciens yi nekk seen ay bureau climatisé di fecc ak di way te jamono jooju population Sénégal amunu lu ñu ku ci ku ci añ amuloo loo reere ku ci reer yaa ngi jaaxle ci ndékki bi lay xaar suba ba tax na li wér ba wér moom mooy jóg jot te jóg ca ba jóg jotee mooy jóg bi gën a rafet mooy jóg bi gën a mat may jeexal di gërëm ak di sant sunu responsable politique yépp yi nga xamante ni ci yoon bi uy si nanu te xam na ni ci jamono yi mbas nanu nekk mu nekk jamono ju metti pour mën a wër ak toog di waxtaan maa ngi gërëm te maa ngi sant xanaa leen ko defee waaw suma parti li mu ci troisième mandat dafa nekk lu leer moom mooy d'accordul ci troisième mandat di tey ak suba bokk man mi, jiite parti bi ci ñi nga xamante ni bi ñuy idi quatrième président 2012 nous avons donné place de l'obélisque pour que Abdoulaye Wade ait troisième mandat Ben candidat rek moo Si si conseil constitutionnel d'accordé mandat le mandat, war a def man dinaa l'élection, élection Macky Sall bi yàlla président de la république Mon parti qui la même posture Je suis d'accord nous, ci le troisième mandat mais nag ay républicain nous bés bu conseil constitutionnel validé troisième mandat bu fekke Macky Sall demandé na bu boba tamit dañuy rester républicain d'accord ci troisième mandat bobu dox ko lolu mom moy sunu position wu parti ci li wante li nu fokk ba fokk ko moy li nga xamanteni mo wara war démocratie kanam Sénégal tollotul fuy ben candidat wala ben leader di xalaat Mandat de 3 heures, bien qu'à maintenir tête de nos constitutions, mais d'un mandat de 2. C'est bon, c'est bon, c'est bon,